asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon mbokk yi nga xam ne yéen a ngi déglu nekk ci Uuraasul Iraada yëpp ñoo ngi leen di ñu di leen ñaanal jàmm ak mucc ak wér xibaar yi nag mënatul xaar ay ñaari fan ay ñetti fan ndax dafa tegaloo te lépp ci benn xew-xew la te nit ñi dañoo bëgg a xam nu mu demee léegi euh, ministre bi nga xam ne mooy ministre de l'intérieur bu Afghanistan nee na jamono ji ñu toll taliban yi moo di mujaahidiin yi attaqué nañu biir Kaboul ci côté bu nekk maanaam ñu ngi duggee Kaboul capital bi ci côté bu nekk léegi ñu déglu Sky News Arabia mu leeral بكم إلى هذه التغطية العاجلة حاليا أعلن وزير الداخلية الأفغاني أن طالبان حركة طالبان بدأت في اقتحام العاصمة كابول من جميع الجهات إذا بينما بدأ نقل الموظفين من السفارة الأمريكية صباح اليوم وإجلاء الرعاية الأمريكيين من السفارة إلى المطار صباح اليوم من خلال الهليكوبتر من الروحيات التي نقلتهم فإنه يبدو أن حركة طالبان بدأت تدخل العاصمة الافغانيه ولم تترك اي مجال هنا ربما لاستكمال القوات الامريكيه لانسحابها، الرئيس جو بايدن كان قد هدد حركه طالبان برد عنيف عسكري وسريع في حال تعرضت لأي مصلحة من المصالح الأمريكية في كابول وقال بأنه أرسل تعزيزات عسكرية أمريكية قوامها خمسة آلاف جندي إلى كابول من أجل تأمين إجلاء آمن وسالم لموظفي السفارة والرعاية الأمريكيين موظفو السفارة منذ الأمس يعملون على التخلص من جميع ملفات الأرشيف الحساسة الرموز الأمريكية خشية أن تدخل طالبان وتقتحم السفارة وتستخدم هذه الأوراق الرسمية أو الرموز الأمريكية لا يوجد أي معلومات عن kon ñoo ko déggandoo léegi dégg loxal arabiya dégg nañ loolu nga xam ne moom la Sky Sky News al arabiya wax ñi déggul loxal arabiya nag nee na ministre bi yore mbiru mbirum réew mi nee na tey ci suba teel ci la taliban yi ñëw attaqué si biir Kaabul nee na jamono nee nañ sax ñoom xaaruñu ba américains yi dem ak seeni bagage bi américains yi de naaw ak seeni hélicoptère di dem aéroport ba ngir bëgg fa bëgg a jël seeni avion vol naaw dem muy seen avion yu ponkal yu ñuul yooyu nga xam ne avion soldat la bi gars yi di naaw ak seeni i hélicoptère di jóge ca seen ca seen bayal ba nga xam ne moo jàkkaarloo ak seen ambassade ba ca biir Kaabul booba fekk na taliban yi ñoom dugg nañ ci biir Kaabul ak seeni i seen i métrage ak seen i fetal attaqué nañ Kaabul waaye nag Joe Biden da leen a waxoon ne eh, ci lu sévère ne leen bu ngeen attaqué lenn lu bokk ci Amérique ak ak ak ña ko fa ak ak fa toogal di ay américain ci saase ak saase dinañ fayu te fayu bu mag la ñuy fayu fayu bu metti la ñuy fayu waaye nag taalibaane yi songuñu américain yi waaye daal songu nañ capital bi xaaruñu ba américain yi dem démb ak bërki démb nag nee na li leen li leen fi bàyyi woon ñoom américain yi moo di yàq lépp luñ doon liggéey mu di ay këyit yàq lépp luñ doon liggéey muy ordinateur wara machine yàq lépp luñ doon wootentee muy téléphone ndax bëgguñu benn code boo xam ne américains yi doon nañ ko jëfandikoo foofu ak waxantee ko defante talibaane yi jot ci moo tax ñaari fan yi passé daal ci yàq seen jëfandikukaay ya ca lañ nekkoon lii nag daf ñuy fàttali ca xare maanaam yahud ya nekkoon Madina te yeneen bi ne nañ ba ci Banu Xuraysa te gaaya di gor seen tàndarma ya ne duñ ko fi bàyyi yeneen bi ne gor leen leen tàndarma yi bañ xam ne ñun amuñu ci soxla islam day répété nam doon répété bu njëkk ba léegi na nga xam ne noonu la yeneen bi dàqe woon yahud ya ca Madina ñuy gor seen tàndarma ya di taal seen angaari jali tàndarma ya ak a rey seen jur ya ngir bañ julit ñi jël ko noonu la américain yi def di lakk seen ordinateur yi di taal seeni portable di taal lépp lu bokk ci ñoom lu mu luñ dawaale te bëgguñu ah taliban yi jot ci nañ def na yahud ya nañ def si aban bi duni raj bi xëyri raj nañ dem ba biig te buñ leen gisati مستقبل الحكومة الأفغانية والرئيس أشرف غني الذي كان يتدارس بالأمس مع مستشاريه ومسؤولين قريبين منه تقديم استقالته من أجل إرضاء حركة طالبان لكن من خلال معلومات تم تسريبها بأن هناك قيادات في الحكومة الأفغانية مقربة يعني لا تعمل مع أشرف غني لكنها بدأت تتعاون مع حركة طالبان منذ أيام وتتفق معها على تسليم كابول للحركة من أجل ضمان سلامتها وبالتالي فإنه حتى الآن لا يوجد معلومات عن أي اشتباكات أو أي تصدي عسكري لدخول طالبان إلى كابول من أكثر من اتجاه كما يقول وزير الداخلية علما بأنه بالأمس جرى بعض القصف لمواقع قيل بأن طالبان تتمركز فيها حول كابول ah li jëm nag ci gouvernement Afghanistan Ashraf Ghani mi nga xam ne moo nekkoon président bi ah depuis démb mi ngi doon woote ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay eh, xelkatam yi koy xelal doon wax ne daal li gën a gàtt mooy man na rendre démission ma jox taalibaane yi nguur gi su ko defee jàmm am waaye nag la tax mu doon ko def itam dafa yëg ne ñi nekk ci pale bi ak moom am na ci ñoo xam ne ñoo ngi doon jotante ak taliban yi di di wax ak ñoom ci jox leen nguur gi directement ci lu dul xeex taliban euh, Afghanistan benn askan lañu wenn melo lañu yore ña ca gouvernement baag ña ca général ya ca armée baag ñëpp ci yem lañu gëm lañ bëgg a attewoo tubaab lañu bañ kéefar la ñuy xeex ñoolu moom dañ koo maaseloo yàllaa ko def ci seen direct xaw ma nu mu demee noonu waaye loolu moom mooy jikkoy taliban yi mooy jikkoy gouvernement ba démb la Ashraqaan yi bëggoon a jébbale boppam waaye ndeysaan euh, euh, bi mu wootee réunion gaa yi xamal ko ne nun sax day noo ngi doon waxtaan ak taliban yi pour ñu bañ a def attaque bi te bu ñu ñëwee rek ñu jox leen dëkk bi mbir mi yam fi mu jeex ñu atte seen liñ bëgg a atte léegi nag démb sax amoon na attaque bu am ndax démb dafa am benn ruq bu ñu doon wax naan taliban yaa nga fa ba armée gouvernement bi dem fa di ko jiima bombardé waaye te moom bi gars yi ne leen ci biir dëkk bi moom daa mel nii daal la yàlla xam doy ne tara naasa sukara wa ma um bi sukara walakin azaballahi shadid tey moom dafa doy waar ba egg ci lool ndax nit ñi dañoo jaxasoo jaxasoo goo xam ne kenn mënut la ko misaal tiit tiit goo xam ne kenn mënut la ko misaal taalibaan yi dañoo jekki-jekki rek ak seen kaal yeeg seen sikkim yu guddi yooyu ne jarax rax rax dugg ci dëkk bi fees del wet goo fool wet gu ne daal la taalibaan yi jël seen fetal daal ci biir dëkk bi ah, démb ak tey nit ñi ci banque yi la ñuy yellu ci lañ fanaan banque yi tëjinu démb ci guddi dañoo continuer liggéey bu ñu xëyee dañoo continuer liggéey ba fi nekk ni banque yaa ngay liggéey ni ñaa nga rang ca banque ya lan la ñuy def ci banque yi dañ faa dénkoon seen alal alal jooju ñu di ci liggéey ci wàllu riba te daal riba ni diine islam lay woote te diine islam nangul riba kon ñoom la ñuy mën a def mooy génne seen alal ya yëpp yëpp yëpp ca banque yi di bu gaa yi dikkee ba programme seen programme ba noppi ñu ànd ca waaye duñ mën a bàyyi noonu ndax buñ fa fekkee alal jooju te alal ji daan liggéey ci riba moom ñi ko daan liggéey dañuy am problème moo tax ñu jox leen digalal fab leen lépp lu ngeen am te dem ba mbir mi jàll waaye banque buy tëral riba di teg ay fis ci nekk dërëm di ko nangu ci doom aadama yi moom jeex na bis ni ki tey ci Afghanistan loolu bokk na ci li nga xam ne moo xew Afghanistan bis naka tey Euh, li ci topp ci li ñuy yëgal nit ñi rek te mooy deuxième xibaar bi nga xam ne itam dikke nañu léegi te Mohamed Khatib moo ñu ko yónnee Mohamed Khatib nee na président Afghanistan ak vice président ba ak yeneen i nit yoo xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo jiite woon mbirum gouvernement ba في إطار استمرار تغطيتنا دو نيو دو نيو أيضا التطورات العسكرية الجارية بعد أن تحدثنا في صباح اليوم عن دخول مقاتلين لحركة طالبان داخل العاصمة الأفغانية كابل ومن ثم صدور تعليمات من قبل قيادات طالبان بانسحاب هؤلاء المقاتلين ريثما يتم الانتهاء من الترتيبات الأمنية الخاصة بتسليم المدينة أو العاصمة بشكل سلمي منذ ذلك الوقت وتقريبا الساعتين هناك تغييرات قد حدثت من خلال الانفلات الأمني في بعض المناطق في العاصمة الأفغانية كابل بالإضافة للأنباء المتواترة عن فرار الرئيس الأفغاني أشرف غني ونائبه أمر الله صالح وبالتالي تسليمهم للسلطة لوزير الداخلية أو المكلف بوزارة الداخلية لكي يقود جهود التفاوض مع حركة طالبان أشرف غني وبحسب تصريحات إعلامية ووكالات أنباء أفغانية تحدثت على أنه تنازل عن جزء كبير من صلاحياته لوزير الداخلية وأيضا تنازل عن جزء من صلاحياته أيضا لأعضاء العضو الأعضاء المفاوضين لحركة طالبان في قطر طبعا نتيجة ظهور تلك الأنباء في الشارع الأفغاني وأنباء هروب الرئيس أشرف غني لحراسة أمريكية إلى خارج أفغانستان ظهرت هناك في العاصمة كابول وخصوصا في شرقها معلومات تقول وتتحدث على أن هناك حالات انفلات أمني وأيضا قامت طالبان bi kon xibaar bi nga xam ne moo daanu ci waat léegi moo di Ashraf Ghani mi nga xam ne moom moo nekkoon président de la république bi américain yi formé woon ca Afghanistan Ashraf Ghani daw na américain yi ñoo ko jël moom ak vice président bi génne leen ci Afghanistan daw nañ fan lañ daw dem xamuñu ko waxaguñ ne ñu ngi daw jëm bërëb sàngam waaye daal dafa séddalewoon ay ay ndomboy tànkam bi muy bi muy waaj a daw ministre bi yore mbiru mbirum réew ak ministère ba ci boppam ña liggéey ñoom la joxoon ndigal ne leen bu taalibaan yi dikkee ngeen waxtaan ak ñoom ci nu ngeen def ba juboo ngeen jox leen nguur gi ci jàmm te ngeen bañ a xeex Eh, geneen wàll gi ci des muy kàddu waxtaanu jubóo wi tamit fañ nekk ca daw ak ca xatar doon waxtaan dafa am ñu ko fa remplacé woon maa ngi bëgg leen a yërëm nag ndax jullit day yërëm mbokk mi saa yu sonnee ndax ndeysaan eh, dafa am ca xatar ñoo xam ne ñoo ko fa présenté woon léegi genn wàll kàddoom ñooñu la ko jox ñoom ñoo fay négocier ñoom ak taalibaane yi waaye daal def na nguur gi ñaari xaaj bi xaaj mu wékk ko ci gars yi doon jubale ci xatar bii xaaj mu yëkk ko ci ministère bi nga xam ne mooy yor ministère bitim réew daw na premier euh, ka toppan ci moom vice président ba daw na américains yi dawaale nañ leen yóbbu leen léegi nag ministère bi nga xam ne mooy ministère bitim réew moom lañ jox ne ndigal ñoom américains yi ne ko bu taalibaan yi dikkee ngeen waxtaan ak ñoom te bu leen xeex la xewoon te fat u màkk xew na fa mooy iflaat am nii am na ci dëgër way dëgër bopp yi ñoo xam ne jotoon nañoo tiire foofu ba taliban yi riposte ci seen kaw ñu daw raw ah léegi ñu ne président bi kat lim wax lu leer la démissionné na jox na nguur gi taliban yi kàddu ma ci ministre de l'intérieur ak gaa yi nekk xatar di fa juboo ak waa taliban yi nañ fexe ba juboo jox taliban yi réew mi ci jàmm te bu xeex am lii daal mooy li nga xam ne ci gàttal ndax xibaar yi gàttal la yoo xam ne bëgguma ngeen dem noonu ci noppi kese du ngeen xam li xew mooy li xew tey ci suba taliban yi dugg nañ foofu euh, président ba daw na vice président ba daw na ministre de l'intérieur lañ jox kàddu pour mu juboo ak ñoom américain yi itam ña ngay jël seeni bagage ci ay hélicoptère di naaw di dem ca aéroport di naaw di dem seen yoon taal nañ seen i kayit yàq seen i ordinateur yàq seen seeni téléphone amirul muminina it dafa wax ne jigéen ñi nañu féete foo xam ne euh, fu wóolu la ba nga xam ne bu histoire ak coow di amit ñoom jigéen ñi dañuy mucc xale it nañ leen yóbbu ci place bu wóolu boo xam ne euh, ñoom tam dañuy mujj képp koo xam ne da ngay doon gànnaay di jàppale gouvernement bi boo dikkee joxe sa naa ñu bàyyi la nga dem amul topp ñu la dara amul xuloo amul xeex amul tëj ci bi amul atte amul dara loolu daal mooy li fa am ci jamono ji ñu toll bu ngoonee itam danañ leen dikkal leneen lu fa xew ngeen xam ko ndax xew-xew yi egg na foo xam ne mënatu la xaar ay suba ki ginnaaw suba waaye day rat par ndànk-ndànk